mi ma ñëwee jógee ci programme bi si meekoo ci suuf yaa may dégg. ok génnee samay bijoux def sama saak bu roos bi. Mm-hmm. simi sama yére dugal teg ko sama valise bi noonu daal di sol beneen robe bu oyof daal di daw dugg si douche bi. pour mm-hmm. récupérer bagage yi ma fa wàccoon. Mm-hmm. génnee waale ko sawaale. noonu la fa demee te ba ma fay dem léegi ma ñëw ci affaire sa sàcc gi wala. déedéet. waaw koy yow kon Las Vegas ñaata semaine nga fa def. Las Vegas defuma fa semaine xaaral ma ñëw xool sama billet ma maa ko jënd la sama bopp. defuma fa semaine bañ ne programme bi su ma juumulee dimanche la woon su ma juumulee samedi su ma juumulee vendredi wala samedi laa dem suma waaw vendredi wala samedi dimanche lundi. mardi mercredi jeudi vendredi samdi loolu six jours la presque semaine def nga ko yow Las Vegas. non non xaaral laa dem. waaw. toog fa samdi waaw dimanche. dimanche la woon programme bi. waaw. lundi mardi ma ñibbisi. cinq jours lundi mardi ok léegi def nga fa ay quatre jours yooyu. waaw cinq jours léegi quatre jours yëpp yëpp yëpp yaa ngi doon jàppante diggante kër gu mag gi ak kër gu ndaw gi. maa ngi doon jaabante kër gu mag gi ak kër gu ndaw bi saa samay or saa samay bagage saa a xam maanaam sa saak bi nga xamante si nii moom nga daan def say or loolu fan nga daan loolu ci kër gee la daan nekk kër gi ma nekk la daan nekk ok kër ga nga nekk foofa nga ko daan bay mais kër ga est ce que xam nga ñi nga xam ne ñoom nga fa bay ak seeni or ak say or yow man kër ga nga fay génn ñëpp a nekk ñëppay génnandoo. ah kenn du ko def ñun génnandoo mais bagage yi ba tey mu foofu tege. waaw mais ñëppay génn kër gi. waaw la ndax ci ginnaaw kenn dina mën a yolleeku maanaam daan ne comme man am na lu ma fàtte kër ga dellu kër ga te yow mën nga koo bañ a yëg. xam nga déedéet amul kër googu dafa sori. amul amul waaw dama nit naa jël maanaam man mën naa ànd ak yow. mën naa ànd ak dem Firenze yaa ngi dégg. waaw dem firenze jóge Pisa ma daal di génn ma ne faaw ma demaat Pisa ñëwaat bu ma yoree oto mën naa ko sinon xam nga yow li ma lay wax nii waxu nit la léegi dama lay laaj comme tey jii man ak yow man waaw yow moo géet nan ko wax ak Ablaye ñoo nekkandoo woon ci kër gi waaw léegi chaque jour bu ndee génn dañuy génnandoo waaw mais bu nu génn ndoowee man man naa yolleeku man ma demaat ca kër ga jël samay bagage ñëwaat fekkaat na ci xew mi te doo yëg ne man déplacé wu naa dem ci kër ga comprendre nga fi may waxee. loolu yëpp mën na nekk maanaam loolu yow mënoo koo xam. loolu yow mënoo ko xam waaw mënoo ko xam ah, ah. léegi nag ñëwal ci affaire sàcc bi mam lu ma la expliqué. ba ma ñëwee vendredi. Hmm. or yi mu ngi woon ci man. waaw. samedi mu ngi woon ci man. Mhm. dimanche laa ko sol ci guddi. dimanche ci programme bi. waaw. ci kër ga laa ko solee entre waañ beeg saal bi falaa nekkoon falaa solo wax naa la. waaw. te bu fekkee li ma lay wax du dëgg dama ne la man maa ñaan yàlla. bu fekkee ban ba ma amee dix huit ans laa la laa aj màkka def naa màkk huit ans. waaw kon du ma wàcc yonent bi ak yàlla ak kaaba ga di fen. a ah, dem nga màkk. def naa fa huit sama doom fa la juddoo. ah. waaw. Ah, yow amoon nga bu fekkee bu fekkee li may wax du dëgg. jour ba ba ma bàkkaar yi nekk màkk yëpp ña ñëwoon àcc ujaat ya ñay sàcc ak ña dul sàcc ña def yoon ak ña du def yoon maa ngi ñaan yàlla mu sotti ma bàkkaar boobu tam may ma sukuraat bu metti très bien léegi ñëwoon bu fekkee li may wax du dëgg yàlla naa sukuraat cinq ans àdduna ñëpp teg ci seen bët. musuñoo gis sukuraatu cinq ans man maa ko ñaan yàlla bu fekkee li may wax du dëgg. léegi ñëwal. bañ jógee dimanche si programme bi. waaw. ñëw ma simmeeku dugal samay bijoux ci saag bi Tange moom moo ma simmi sama jaaro ndax sama wey yi dafa guddoon. ah Tange si boppam moo la dindil yow say jaaro. sama jaaro nopp. moo la ko dindil. waaw maa ko ni Tange ah. sarax ma nga dindi ma sama jaaro parce que dafa mënu ko génne parce que wey yi dafa gudd. aha taas moo la dindi say jaaro parce que mënoo ko woon a que say wee dafa gudd taas moo la say jaaro waaw mu daal di dindi ma ko jox ma ko ma jël sama takkaay yëpp daal di ko dugal ci saag bi bu bi roof ko ci bi ma ko ci roofee simmeeku waaw si bijou yi laa njëkk simmi parce que dama doon xalaat ni su may simmi yére bi avant may simmi bijou yi te mu yàq bi wala yooyu bijou yi laa njëkk simmi ok dugal ko ci saak bi simmi bijou bi. Mhm. Euh, simmi bijou dugal ko ci saak bi simmi yére bi dugal ci valise bi. Mhm. daal di sol sama robe daal di daw. dugg ci douche bi. instant yooyu fekk na montage kese fa nekk. du keneen fa nekk. Mhm. billahi wallahi taalaay bu dee mës naa teg sama loxo ci ajaratul aswad bi nekk maska. te may wax du dëgg yàlla na ma yàlla yàlla na ma yàlla war lu métti ci àdduna. instant yi ma duggee ci douche bi instant yooyu la taas jël bijou bi ok léegi yow lan moo la leer ne maanaam bi eh, bijou bi taas moo ko sàcc li ma leer laa ci am ndax ba dama leer taas moo ko sàcc li may wax su ma tuddee sama bàmmeel dama koy wax waa non non nan la inspiration bi ñëwee ci yow loolu laa bëggoon a xam parce que moom kese moo fa nekk ba pare bi ma ñibbisee yónnee pour ñu laaj sama bijou moo mu génnee sama jaaroo sama chaîne xaalis la génnee jox ko kooku doon ko laaj sama bijou mu ne ko Amina lii rek la fi fàtte. tay ah. te ba tey basé wu ma ci loolu te ba tey wu ma ci loolu loolu ak yeneen ak yeneen Tange moo jël sama bijou. bijou yi xoolal du question damay accuser Tange doon question dama ni Tange moo ma sàcc parce que dama soxlawaat mu delloo ma ko xëy na dafa am problème mu sàcc ko baal xoolal na jël. xoolal déglu ma mais yow ñaata euh, ñaa ñaa yow yow maanaam ndax gaa yaa ngi naan xam naa moom dafa bëgg ay biisu wala yorul ay or est-ce que mën nga wan gaa yi yeneen or yoo xamante si nii yaa ngi moom bokku bokk te ginu sàcc man taaj daf ma sàcc moo tax ma wax ni moo ma sàcc te dama bëgg ñeneen ñi nga xam ne dañuy nekk naa taaj soxlawul lii wala dara dafa am leen lu nekk ci ginnaaw sàcc la mooy mooy première sàcc mooy première mëninam du journaliste sax c'est pas du journaliste mais yow ok yow yow yaa ngeen foofu yeneen ni or wala Europe. waaye or yaa ngi nii or yaa ngi nii dinaa la war or yi dinaa la won tam yi nga xamante ni du or. balaa ñu naan ndax sénégalais ndax sénégalais na la ñuy wëlbatee affaire yi valeur bi nga xamante si nii. Taaña moom la sàcc ñaata lay tollool ci xaalis. loolu 2 millions la loolu weccet la man waxuma ko que valeur bi moo tax wala or yi. dama ko wax parce dañu ñu bàyyi ko xel